wax nii la te fii la ndax euh, ki nga xamante ne mooy monsieur dëkk bi li xamante ne moo koy dooleel mooy diine gi ndax dëkk bi balaa dara sotti maanaam jàmm day am te gis nañ ne ndaw ñi tey bu ñu delloo ci yàlla rek li nga ne moom bëgg ci développement dëkk bi loolu dina mën am ndax jafe-jafe jamono crise bi lenn rek la muy crise des valeurs que dem ba xol yi yàqu que dem ba jaam jikko yi doy waar lool éducation jafe lool jamono mais dañ ne bés boo demee ba xamante ne xamoo foo jëm dangay ngay dëpp dellu fa nga jóge loolu moo tax suñu borom di wax ne jaam ñi nga xamante ne yéen a fi ne te dem ba taxaw taxawaay boo xamante ne leer na ne da ngay dem ba xam ne fii ma nekk nii yàlla gërëmul mu ne yaa ayyatuha nafsu ay na mutmaina irji ila rabbiki raadiyatan mardiyatan fa duxuli fii ibaadi wa duxuli janna mu ne yow mi borom bakkan bu dal bi mu ne irji dëppal ila rabbiki sa borom kon dépp dellu ci yàlla loolu mooy li nga xamante ne moom la mag ñi doon dimbalee gaay yi bés bu demee ba jamono lëndëm suñu borom dina yëppal bi nu xutbu koo xamante ne day ñëw ngir yeesal xol yi ndax xol yi rek ñoo am problème fu mu toll ni gaay yi de xametuñu dëgg ak fen jamono bi lu ñuy dund doy na waar lool te solution bi lenn rek la mu jam ñu xam yàlla delu ci yàlla jaamu yàlla ndax wama khalaqtu xalaqtul jinna wal insa la liya'buduun yàlla sakkul nit ak dina luñu jam ko kon jaamu yàlla rek motax jam bi wàcc ci kaw suuf kon ndaw mi nak amna chance bo xamantene bés bu defé li nga xamantene suñu borom mom la ko sante ndax suñu borom ya yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa taqu ilayhi alwasila wa jaahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun mu ne yow yow mi nga xamantene ya gëm te ragal mune na nga jox sakku ci wasila wasila mooy kan moom la ñu wax sëriñ moom la ñuy wax sàng mooy ki nga xamante ne moo lay jokkalaat ak sa borom ndax ku réere yàlla mënoo ko jaam xadis ba dafa ne taxrifu nii xabla an tax bi du nii wa in lam yaxrifu nii fa kay fa tax bi du nii na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may ndax su ngeen ma xamul naka ngeen may jaamu kun jaam bi buñ ko ne xam yàlla war na egg ci yàlla war na gis sa borom war na kon loolu dafay nag fardu ay nii xam-xam la boo xamante ne nag bokkul ak sariyatu boo demee ci jumaa ji maanaam im na imaam bi la muy def mooy sariyatu di jàngal lépp loo xamante ne maanaam sariyatu la loolu noonu mën na ko na ko jàngal bi mook ustaas mais dafa am lu mag ñi doon yare xam-xam boobu mu wax xam-xamu tasawuf xam-xam la boo xamante ne moom la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul suñu borom dénkoon mu taxaw ci njaareem ne min allaahi illallaahi ay na muridulaa ci yàlla laa jógee ci yàlla laay dellu ana ñu na banam ci yàlla fekk na gars yi di julli di woor di joxe asaka di aj màkka di saraxe mu ne fekkuma fi li fekkuma fi lu baax fekkuma fi ku baax fekk naa lislaam gàddaay ba dem ci réew géej gi ma jegaane ko indi ko loolu gàddaayoon nag du lenn mooy xam-xam bi nga xamante ne mooy raas xolu jaam bi ba mu set ngir mën a mën a jaamu borom ndax xol moom la yàlla konte de gis nga la muy wax ci alquran yëpp yow ma la xam mu faahu maalun wala banun la wax illaa man ata laa xam ne xam ne salim suñu borom leen ëllëg yomal xiyaam aw ma soxla ci seen alal yi aw ma soxla ci doom yi de mais li ma am soxla ci seen mooy xol bu set muy catholique beeg muy jullit beeg keneen ku mun a doon ci diine boo mën a nekk yàlla xal bin salim la soxla ci yow xol bu set xol bu setul jaamu yàlla mënta nekk mag ñi nag loolu moo taxoon ñu wàcc di ci dimbale jaam yi dañu dem nak ba jamono jam ñi xameetuñu deug deug deug ana fan lañu wara jaar te suñu borom dafa ne al gotwa an min abu abi xaa na ngeen dikk nek bi buntu bi kon buntu yalla lan la nitu yalla la yalla boy wacc bi jam bi di wacc kaw suuf nga jaar ci ñwaañu wajur mais boy delu ci yalla fo jaar suñu borom la ne la demal wuti wasila kilifa bo xamantene mo lay delo wat sa borom kon lolu fadlu ay la loolu lañuy ñuy dimbalee ndaw ñi ba képp ku ci nekk maanaam li nga xamante ne moom moo la jafe woon dafa dafay nekk loo xam ne kenn mënu ko xamal boppam ku nekk rek maqama boobu noonu dafa am foo ko jëlee bàyyi laat Mbàkke dafa wax ne jàmbaar naw fi yaa fus naw fi ku ñu dimbale moo fi ne kon képp koo gis mu yegg foofu dañ koo dimbale ndimbal googu na nag na fekk ci loxoy borom parce que tey bés boo amee sëriñ a ah la war la mu doon ci yow mooy si mu muniir mooy làmp bu la war a leeral lu mu lay war a leeral sa naka la fi nekk nga xam ko mën ko jaamu mais bu dee am nga sëriñ nag te loolu noonu mënu ko la xeral xamu ko eggale eggalewu la ci wanu la ko dëgg-dëgg foofu noonu yaa jàpp ne kii sama sëriñ la mais fa yàlla motoo sëriñ kon sëriñ day jàpp taalibe raxas xolam ba mu set mu yeggale ko ci yàlla taalibe bi dem jaamu sëriñ bi dem jaamu ku dee yàlla fay la ndax jaamu yàlla kenn mënu ku nekk dafa am loo xamante ne yaa koy defal sa bopp kon toppee bi du ko waral xam yàlla la boo toppee sëriñ bu ko xamee ne la ko xamal bu ko gisee ne la ko won bu ci eggee ne la ci eggale loolu bu amul njëriñ nekku fa dala ëpp xel rek dina nax mais sëriñ loolu loolu mooy njëriñ bi tey kii nga xamante ne mooy Sidna Alioune sama dooma ah loolu la ànd ak tout tànk yi mu nekk lu doy waar nag fu mu mos a jib nag coow bëri xam lu tax parce que da sharia charia ak la dafa nek lo xamantene manam li nga xamantene mom la jaam ji di def ah loolu day melni nang koy weddi fek na weddi woko mais dafa am loy feñal gis nga mbiru xol ak mbiru jëm bokul jëm ak bokku ñu mbiru jëm la sauf mbiru xol la moy li lay won sa ay bu la lay won te nit ki bu deme ba xam ay bu dina war a jaante ak bopam ndax yàlla mi nga xamante ne moom la jaam ñi di wër foog ne mu ngi ci kaw asamaan si ba ñoom bu ñu wetee def leneen lu noonu maanaam yàlla moomu soriwu leen su ñoom leen fa ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid na ngeen xam ne maa leen gën a jege seen bu mu xol te inna laa maanaa fu ngeen jëm maa ngi ànd ak kon jaam bi moom bu wetee dafa war a gore bu wetul koo gore mais ci naka na fekk nag mu xam yàlla te xam yàlla mooy xam sa bopp ci dëgg yonent sa sallallahu alayhi wa sallam dafa ne wa maa arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ku xam sa bopp ci dëgg da ngay xam yàlla kon nit ki mooy wër boppam may loolu nag moom la sëriñ di leeral taalibe bi nekkul loo xam dañ la ci asamaan mbaa ñu woon la ci suuf yàlla du ay miracle yàlla dafa nekk loo xamante ne leer la boo xam ne def la war a leer allahu nuuru samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma yàlla mooy leeru asamaan ak suuf ak ci diggante bi mais ci naka du leer buy takk di fay mais leer bu la war a leer la loolu nag moom ngay dem ci sëriñ bi mu leeral la ko naka la fi yàlla nekkee mankewul fenn mu ngi fépp gis na ko kon maxama boobu noonu moo waral Serigne Touba woote woon loolu moo waral Alaaji Malick woote woon loolu moo waral Baye Niass woote woon gars yi topp leen loolu la ñuy toppee Serigne bu dee jàng alxuraan la boo ko jàngee ba pare li dalee baax la dañ laa ne jógal nga parce que njàng moomu moom waxu yàlla nga jàng mais ana yàlla mi wax nag. yàlla moom nag moo waroon mag ñi bu njàngoon téere ba pare tëj téere bi dem wuti sëriñ bu leen xamal nag yàlla moom nga xamante ne moom nga waxam nga doon jàng bu ko defee nag boo jàpp boo saafanteek sëriñ yooyu noonu ñu dimbali la ci xam-xam boobu noonu xam-xam boobu noonu nekk na xam-xam bu tumarank ci jamono nag mo mais moom rek moom mën a war ja moo mën a yar jaam moom rek moo mën a defar jaam ku defar woon démb foofu rek la defar woon baatu laa ilaha illallah la secret bi ñu ci biiram kooku nga xamante ne mooy Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru bi nga xamante ne moom ngay dégg kooku mooy suñu sëriñ kooku sëriñam moom la ñuy wax sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul kooku mooy wasilam moo tax mu ne man mu taxaw ne man awma benn wasila bu dul Bàmba jaamu yàlla nag laa ilaha illallah moom a ci doy moom Cheikh Moussa mu ne liggéey nag mbéy moom ci doy kon kooku képp ku na tàmbalee fan la bokk maanaam fu mu bokk maanaam tey taalibe Serigne Touba Khadim Rasulullah moom Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daal moom la ñuy wax yàlla yàlla yi njaboot gu mu yar ñooñu noonu la ñuy wax yàlla yàlla yi. lu tax yàlla yàlla yi nag mooy gis kàddu yi nga xamante ne foofu ñu nekk yàlla la ñuy wax yàlla yàlla yàlla yàlla gis ko te loolu noonu ci xalkom lañ leen ko tuddee ci liggéey bi nga xamante ne moom lañ demoon njabootam demoon liggéeyi foofu noonu mais bu ñu toogee di waxtaan ci yàlla di waxtaan ci yàlla. ba gis na ko ku ñëw rek ni waaw ñii di wax yàlla yàlla yàlla yàlla gis ko ba ñoom ñoo yàlla yàlla yàlla moo waral tur bi mais nekkul loo xam ne ñoo ko tuddee seen bopp gis ko maanaam tey ah jaam bi bés boo demee ba nga xamante ne moom yàlla moomu noonu xam na ko ah mënatul wax leen dul yàlla ndax bitik bu nekk marchandise mu am lay jaay kon ki nga xamante ne yàlla moo fees si xol bi kooku noonu mënatul génne ci làmmiñ lu dul yàlla mënatul gis lu dul yàlla mënatul dégg leneen lu dul yàlla mënatul dox ci leneen lu yàlla loolu moo waral fi ñu toog ak gars yi di wax yàlla boo waxee ñu ne waay gars yi dañoo bëri yàlla yàlla dañoo bëri wax gisa ko mais nag jaam mu ngi yendu di wax leneen lu gën a suufe te jaam ñi ndesaan du ñu lamantewu loolu mais jaam mi da xam ne maanaam xel yi ñoo tilim de cette sorte que boo toogee di wax yàlla sax benn temps bi am gars yi amuñ temps sax boo xamante nañ teewlu toog teewlu yàlla ngir mën a taataan njëriñ bu ñu tolloo foofu nag maanaam il faut dimbalante am parce que diine laa labyrinthe la gars yi ñu war a dimbalante kon ni ko defee rafet na kawe na leer na ndax tey ah bërëb bi seen bërëb la dëkk bu seen dëkk la te am na lu ngeen ci nàmm kon naa dafa ñëw ngir jàppale leen ci dëkk bi ci développement dëkk bi waaw ndax développement dëkk bi mooy gars yi ànd doon benn waxtax si moo bi xablilaahi jamee xam wala tafarakoo ànd doon benn te loolu fan rek lañ ko mën a àndee muy xol yi ànd xol bu ñu àndee bu boobaa lépp day daal taar lépp day daal di taaru bu baa jëf di doon benn kàddu gi dee doon benn dox gi doon den benn mais tant xol yi àndul ah kii bu bu defee lii keneen def leneen jërëjëf macha allah ah kon ñu ngi jéglu ci kàddu gi ñu ngi guddal amaana yéene la ndax yow moom ah ni nga ko waxee yéen missionnaire ngeen ndax guddi gi daanaka da ngeen di dox ci ay bërëb yu bërëb yu bëri ngir lan ngir rek bokk ak jaam ñi li nga jëmmal te lu rafet la lu taaru la rafet la lu taaru la mais na nga ah sidna daal li nga xamante ne moom la fi wootee xam-xam la boo xamante ne mooy defar xolu jàmm xam-xam la boo xamante ne képp koo xamante ne daj nga ko mucc àdduna mucc alaaxira képp ku ci yegg mucc àdduna mucc alaaxira ndax mu lay permettre nga jaamu yàlla te lépp lu lay permettre nga jaamu yàlla loolu moo gën ndax lu jafe la lu jafe la jamono bi jaamu yàlla lu jafe jamono bii nit ñi lu leen neex rek la ñu xam seetatuñ lu neex yàlla mais lu neex rek te képp koo xamante ne yaa ngi ci la neex ëllëg moo moo am la neex dangay bàyyi la neex bàyyi li neex sa morom def li neex yàlla tant ñu ngi ci li neex yàlla ëllëg rek bu boobaa dinañ am lu ñu neex ndax yàlla binduñu ngir ngir boppam boppam rek moo tax ñu binduñu kon nag e, mu ngi noonu boo demee ci monsieur le maire e, nga nuyu ñu ko bu baax a baax siyaare ñu ko magal ñu ko ne ko ah ñu ngi koy bége bu baax a baax a baax a baax ah mot nga mot nga ndaw mot nga ndaw ndax eh, taxawaay bi sa waay ni mu ko waxee yàgg nga fi mënoon nga ñëw rek nuyoo rek gis na ko génnaat waaw mais nag boo toogee bu waxtu bi maanaam rafet na rafet nañ ko bu baax a baax a baax yal na borom bi gërëm tànk yi yal na lépp loo xamante ne namm nañ ko fi ci pays suñu borom ci dëkk bii yal na ko suñu borom motale yaatal ko mu daj fépp àdduna waay ci doole laa ilaha illallah nuuru laa ilaha illallah bi sirri laa ilaha illallah gaawaay ina amrahu isara da chean lahakul fayakun jërëjëf